léegi nag dañuy ñëw dugg ci sëñ bi bio naturel tur bi inspiration tur bi bio naturel bi. ba da nga doomu aadama dafa war a am bio. bio ndax doomu aadama dafa bio. dafa bio waaw yàlla dafa bio yàlla dafa bio yàlla du def def produit chimique. Ah, léegi lan mooy bio. bio mooy lu naturel loo xam ne. Ah, tout ce qui est naturel tout ok loolu la ñuy ooyee bio. loolu la ñuy ooyee bio. bio mooy lu bi loo xam ne amul dara lu chimique. amul dara lu chimique. voilà teg ci naturel. teg ci naturel léegi nag yàlla dafa bind doomu aadama mu bio. waaw. ndax gàncax yi ngay lekk. Mhm. day transformé wu nekk sperme. Mhm. sperme boobu moom ngay moom moom mooy juddu ne moom mooy ñëw nekk nit. nit ki bu ko yaayam ëmbee ci yaayam lay dund ba keroog muy mat. d'accord ba mat neuf mois. Mhm. mu juddu bu juddoo ñu ne nañ ko jox meew meewu yaayam. meewu yaayam am na lépp luñ soxla ci wàllu vitamine lu ñuy war a piccir xale bi. lu ñu war a jox xale bi mu naan wala lu ñu war a jox xale bi mu lekk lépp am na ci meew mi loolu lu ko waral mooy meew mi daa bio mhm. bu meew mi bioowul woon mhm. du mën a am loolu yëpp du mën a am loolu yëpp du mën a am fer ferñeent yooyu yëpp loolu moo tax nag doomu aadama mhm. soxla bio bio nag dafa dëppoo ak nit moo tax doomu aadama yi nga xam ne dañuy consommer bio léegi tax àddina bi léegi commencé nañu dem vers la bio bu baax léegi ndax lu tax dañu gis ne ñi consommer bio ñooy ëpp ëpp santé ñooy ëpp force ñooy ñooy ëpp énergie. Mhm. ñooy ëpp courage. d'accord ñooy am moyen de stress. mais mais mais ci loolu dafa am ñu bari ñuy faral di wax naan da ngay gis nit ñoo xamante ne léegi dañuy dem ci bio bi alors que médecine euh, médecine médecine baa ngi fii euh, moo gën a développé tey jii nii ñenn ñii dañuy am yenn feebar yi dem naan ay yenn euh, bio yi am yeneen jàngoro yu leen ci fekk. da ngay dégg am yooyu waaw day fekk koy def maîtriser wu ko wala amu si expérience. répète na ah. mhm. boo amee expérience da ngay xam parce que c'est l'expérience qui fait la différence la différence c'est vrai. donc boo amee expérience te li ngay def. Mhm. nga jàng ko jox ko ak xam. day day permettre les conséquences da nga koy xam pour nga mën koo éviter loo nit ki. d'accord mën koo conseiller mu mën a xam li muy jël ak li mu dul jël waxtu yu mu ko war a jël ak nu mu ko war a jëlee. Mhm. loolu la ci important parce que lekk sax booy lekk naturellement. waaw am na nooy lekkee mu indi la jabet. waaw naturellement nii waaw lay dañoo dem di tëb suuf di mbëq ba jabet. loolu dinañ si ñëw si lekk bi ñuy lekk di lekk di lekk di lekk di lekk ba mujj gi ñu ne leen ko indi parce que luñ la ñu war a lekk ak ni a lekkee xam dañuy sol ba mu fees sol ba mu fees ak jeex voilà te balaa ngaa balaa ngaa lekkaat da war a xiif te nit ñi dañuy lekk rek sans ñu pour dañuy lekk rek pour lekk